ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu ginnaaw ban sante borom subhanahu wa taala di julli ci sang-sangi mi sayidina muhammad alayhi salatu wasalaam ñi ngi am contacté mbégte saas na ñu koy defee fii si Elvision Média ñu ziar mbokk internet waaye di ziar mbokk waa bitim réew ak képp ko xamante yaa ngi safoo di seetaan Elvision Média ñëwat nañ comme fi niñ daan def rek seen émission taaw dina ji tey ñu seet si kenn ci ko xamante ni waykat la nekk waykat ci musique afro arabe bi lay liggéey ñu seet ko rek fii ci parcelle unité 19 seet mu nekk maman Cheyba Diatta ken du ken dootu ko presenter ken ndax mo way wayu me way ndax neex na laa sang be ndax way bo wax déglu gaay yu bari beug nañ ko ndax son bu triste la machallah mais avant tout dañ koy bay mu nuyo rek après inshallah ñu dugg waxtaan ak moom maman alaykum wa alaykum salaam ba'da uz billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله أمنا صلونا آه، عليكم السلام ورحمة الله ما شيبة ما شيبة دنيو دوغ جوخ تان بك دا دنيو توغلو يا غيسني ما شيبة ما شيبة تي لان لا نيكون واو فتبارك الله نيغ لي سانت سليمته déplacement bi nga def caaro yi bu fii ndax ku amul Pastef doo ko def ñu lay sant di la gërëm ndax ñun lii dañuy kontaan lool su ngeen ñëwee jóg di seeti artistes yi di leen laaj ci lan moo tax ñu toog loolu dafa am solo Salimata li ma toog loo dara parce que la ma waxoon rek bañ ma invité lay waxaat dañoo dem ba ñun xamatuñu affaire bi lan lay nuru ci kàttanu yàlla ci lañu def recul recul bi nag taxul ñu toog nañ doon xaarandi rek fa tabaarakallaahu dañ doon xaarandi dégg ngeen ni mu nga waxee nee na recul bi taxul woon ñu toog dañ doon xaarandi mais maman Choyba looloon doo xaarandi loo doo xaarandi mais ci biir xaarandi bi yaa ngi doon liggéey di préparer benn album wala. waaw fa tabaarakallaahu gis nga man woy li ma leen di wax dafa nekk sama domaine. toog bi di xaar parce que dafa am loo xam ne ñun yàlla daf ñu ko baaxee ñu war a ko seetaan gannaaw bu ñu yàlla cëre cëralee tuuti baat bu xaw a tane ndax ñun dañuy jàng ba léegi mokkaluguñu te it duñu jël woy yi di ko bind dañuy fekk kilifa yi ñu yàlla may ñu bind ay xas yi dañu jël woy woy di ko way kon woy yooyu nekkul ñun ñoo bindal sunu bopp fa kilifa yi di woy di bind di woy xaal boobu ñun xamuñu ko léegi nag loolu buñ koy liggéey dañ ko war a liggéey ci liggéey bu sell waxuma ne liggéey ñu liggéey bu sell de dañuy jéem xaarandi boobu nag dafa fekk ne yàlla xam ne ne mbër buy bëree ba amul cumukaayam bu mat du dem ñun na gannaaw gi ñu yàlla mayee ñu am kilifa te kilifa gi ci leeram bi ko yàlla defal macha allah fa tabaarakallaahu ci barke xadara bi ñun ci lañuy rootee booleeg li ñu am ñu mën a génnee liggéey booba léegi nag tooguñu ndax ñu ngi liggéey te fa tabaarakallaahu ñoo ngi liggéey waaye liggéey bi nag comme ni ñu koy defee yàkkamtiwuñ ko parce que dañu bëgg bu ñëwee rek mu nekk liggéey bu sell fa tabaarakallaahu <laughs> macha allah nee na yàqamtiwu liggéey bi dafa bëgg liggéey bu sottee mu nekk liggéey bu sell macha allah maman Cheikh ba foo toll ci programme yi est-ce que yaa ngi dem ci programme yi comme concert yooyu noonu. waaw bu fekkee concert euh, yi teel naa ko yëg damay dem waaye bu dee teelu moo ko yëg nag du dem xëy na bu demee ba ci biir dinaa la expliquer mais yàlla def na gannaaw bi mu jógee ci prestation bi ma defoon ak maam Cheikh mun naa laa wax ne génn naa ci génn naa fi juróomi yor wala juróom-benn yoon fa tabaarakallaa ndax dem naa fi Ndar dem naa fi Ñaxerat yi des korité bi paase rek def naa fi benn spectacle bu am solo macha allah fa tabarakallah sunu xaaliqin maman ba dañ koo gis mu ngi yëngatu ci musique afro arabe maman Cheyba fan nga jàngee musique afro arabe ak ci ban firxa nga nekkoon. waaw fa tabarakallah loolu boo ma ko laajee dinaa ci kontaan ndax nit ñi dañuy nit dangay faral di wax ne soo buggee egg fenn fi il faut nga am ay jaar-jaar man. la ma waxoon laay parce que sama jaar-jaar la triché wu ci dara euh, ni ngay jàngee leçon ba mu mokk noonu la mel ci man yàlla def na man jaar naa dakaar ville waaw dakaar ville ba ma fa def naa fa presque ñaari at ba ñetti at fa laa njëkk jaar ci kàttanu yàlla avant may jaar Dakar ville nag fii ci daayira bi dañ daan def bu ay cérémonie amee ñun ñëpp miin nañ ñu ci côté boobu dañ daan woy ci cérémonie yi ak gàmm yi ndax maman Cheyba ci gàmmu la njëkkee nag fa tabaarakallah yii gàmmu laa njëkk def balaa may dugg ci ay orchestre loolu moom lu leer ñépp la maman Cheyba gàmmukat bu mag la woon yàlla xam na ko lépp nag ci xadara bi euh, fa tabaarakallah jaar naa dakaar ville bi ma jógee dakaar ville jaar naa Tawféex bi ma jógee Tawféex dem naa jàppale waa Caaroy bi ma jógee Caaroy nag yàlla def na. samp naa orchestre bi ñuy wax jiilul jadid yooyu jaar jaar yàlla def na maman ba def na ko ci kàttanu yàlla. orchestre jiilul jadid yaa ko samp. waa orchestre jiilul jadid fa tabaarakallaahu dafa am ñaar ñu am solo ñoo xam ne bi ma jógee tawféex ñoom ñoo ma fekk si fii ba ci suñu kër waxtaan ak man waxtaan ak samay famille ne ma amatuloo droit toog muy Ousseynou Assane Assane Guèye ak Ousseynou njaay ñaan ñooñu ñoo ma jël si ñoo ànd waxtaan ne ma dangay wax ñan nga bëgguñu jàppale la ci firqa bi ma dem fekk ay njaboot ñu ñëw samp Dakar ville fa tabaarak ñu samp jilu jëti la fa jëlee xam nga dañu ne boo demee ba xamatoo foo jëm dangay delluwaat fi nga jóge woon tout court rek mais ba tey maa ngi am ak ñoom relation waaye boo demee ba xamatoo foo jëm ma chérie delluwaatal fi nga jóge macha allah gis ngeen question réponse yi am na solo mama cheba leral na lu bari dañuy bàyyi rek mu yuxul ñu tuuti après ñu continue waxtaan bi incha allah lan nga bëgg ma wayal la ah xana mam Cheikh bi rek mhm. woy wi ngay woyal mam Cheikh bi abidun aidun <laughs> xana aidun daf la neex ma neex aidun aidun aidun aidun عيدنا عيدون إننا لعيدون إننا إننا إننا لعيدون شيخ تيجان سيان يدوي تيما باكو جبا ويكو باخ بيتا خراي تيما راي بافيكيكو teen bi yaa taxaw di kogow penku soowu ñëpp ngi duy fot nga xool yi kenn du ne tey moom ji yees na ko inana inana inana laa yi duun macha allah gis ngeen de maam Cheikh la doon way foofu mu nekk morceau bu am solo maman Cheikh ba morceau boobu yaa bind wax dëgg yàlla yàlla xam na ne bindumam aidul su ma la waxee fooy bi fi ma ko jëlee damay génn di dem réunion Taïra ma dem ba yoonu marché joor balaa ngay dugg ci marché bi rekk ma fekk fooy bi ñu tëral ko ah yàlla xam na ko barki sëriñ Babacar ma jël euh, fooy bi xool gi gis ñu nisampi euh, mam Cheikh woyal ci mam Cheikh beneen paas bi ñu woyal ci sëriñ Mansour borom daara ci ma jël woy bi denc woy bi moo la mag fuuf nag man li ma ko denc man moo la mag su ma tëddee ba guddi ma génne fooy bi fomp ba mu set rekk di di wax par ndànk-ndànk ba yàlla may ma ma am misaan bi mooy laxn bi mooy ni may air bi ma ko woyee air bi mun naa maa ko fental sama bopp parce que man loolu yàlla may na ma ko mais aidun bi nekk ci kaw Palestine lañ ko woy way na Rachid moo ko way mooy aidun aidun inna naa la aidun ma jël woy bi bi ma defee laxn bi ma war a génne kaset bi ñu ànd man ak Xasan Gueye ñu dem ba ci Xalifa Mbay bi ñu demee ci xalifa mbay ma ne ko woy bi pour ma am air bi dama àbb est-ce que mën naa àbb woyu jàmbur ma won ko xasida bi mu ne ma bien sûr mënuloo ko ci teg looloo waral ma ay Aydoun doo cee teg Cheikh Tidiane Sy li ma dégg nag ñu ne sëñ Muniru Saar moom moo bind woy bi ndax dangay dégg ne ba sëñ Muniru di la way jub si naa ndokkee la tey woyu yéene ko moom moo woy woy bi man nag moo ko bind woyal ko maam Cheikh man ma jëlaat ko woy ko ci kàttanu yàlla tabaarakallaa ah, loolu leer na dégg ngeen mu waxee loolu du hasard ndax euh, sun maam Cheikh ma Tidiane euh, si radiallahu taala anhu moom léppam moom may yàlla daal macha allah mais maché ba dama gis am nga cinq mos wala suma ma moom la يا سيدي المصطفى مام شي احمد تيجانسي لولا النبي جوتلي ak yaa ahmad tijani fala budda fala budda way nga ko ah loolu yëg ki yoguma ko fala budda maa ko waye فلا بد من شكوى إلى الله كرباتي فما لي غير الله جابر كسرتي فلا بد من شكوى إلى الله قرباتي فما لي غير الله جابر كسرتي وقرعي باب الغير يا رب لم يفيد لذاك صرفنا أنا وبابك وجهتي فأنت كريم فالكريم من اتجاه إلى بابه يا من على كل نعماتي ما شاء الله ما ما ما شاء الله يا مصري من ألبوم بركو الله يحبك جيني ألبوم خمغ ألبوم ييب جيننا نكبر سينجل جين ألبوم لا نحكي لي يا سيدي نك عليكم بتاعة الرحمن أكبرن نوي هل من سبيل بي مم ألبوم لا وخين نك Mama ba mi ngi waajal album moom dama ne man su may liggéey album ah yal naa ko fekkee ndax euh, damay bëgg euh, li li li li li ci jaadu ma def ko ba nga xam ne yow soo koy déglu sax da ngay kontaan fa tabaarakallaa sunu xaaliqin moo tax temps yi maa ngi liggéey rek ci benn hommage bu ma defal bëgg a defal góor gi mi maam Cheikh Ahmed Tidiane ndax moom ba tey kenn doyalul ci moom ndax géej loo tànk-tànk dafay des maa ngi waajal benn singal boo xam ne dama ko bëgg a def ci maam Cheikh Ahmed Tidiane fa tabaarakallaahu ak benn boo xam ne maa ngi koy def ci sang bi ndax moom moo tax ñu xam maam Cheikh bu ñu nee maam rekk moom moom moo tax may waajal beneen ci moom boole kaak maam Cheikh Ahmed Tidiane mu nekk single yoo xam ne dinaa ko defagum avant album bi di pare fa tabaarakallaa sunu xaaliq yi. Mama ba dafa am groupe boppam. waaw Mama Cheyba am na troupe boppam. mu tudd. nag troupe bi defaguma ci tur. amagul li may dem di juillet di ñëw yëpp mais amagul tur. fa tabaarakallaa mais dina am tur ci kanam incha allahu rabbi image ba orchestre am lu ñuy xaar pour defal seen bisu bopp ñoom lan la ñuy xaar wala dañuy patienté gu bañ am turam dek. xam nga yàkkamti baaxul te nee la way dajale nit ñi ba ñu ñëw te doo leen woye lu nit xam gàcce raw ko parce que ki dagg biyeem pour ñëw dafa ñëw pour déglu la war tout bu sax toog ñaari fan di fàttaliku yow geste ya nga daan def ak way yi nga daan woy mu dugg ci xol moo te gis nga man sama àddina yàkkamtiwuma ci dara duma ne diw def na dara rek naa def dara yàlla def na jaar-jaar yi ma am yépp ñun fi woykat war a dem dem nañ fa xam nga ñun li ñu gënoon a neex ci àddina moo ñu génnee album album bu même bu defee 10 nit ñi di ko déglu mu mel ni tey kon loolu daf ñu ragal daf ñu ragal la ba pare motiver ñu waat ba nga xam ne beneen album bu ñu génnee day doon bu ko dàqul dana mel ni moom moo tax tey bu ñuy woote fenn fi dañuy bëgg bu ñuy woo fenn fi ci nit ñi fenn fi ci bërëb yi xaw a mag yi nit ñi bu ñu ñëwee doon ko fàtte bay laa yomati na Mama Cheikh ba dem na Sorano demati ko demati ko fa tabaarakallaa man nee naa leen man grand théâtre yitteelu ma sax bëgguma ko mais dama bëgg su may dem fenn bu nit ñi génnee ba taxaw di ma déglu ñoo xam ne kii li muy way jaar na yoon loolu laa bëgg fa tabaarakallaa. macha allah am na solo même macha ba musique afro arabe bi loo ko gisee est-ce mi ngi avancé wala. ah xam nga li may faral di wax ne nit ku nekk ak xalaatam nit ku nekk ak gis-gisam xam nga musique afro arabe man buñ nee dox na. dama jaaxal de. loolu. xam nga lu dox lu dox lu bon bon junni nit dañ koy déglu ci benn bés. mais c'est très rare nga dugg taxi sax taxi bi gën a tuuti nga dégg ñu teg musique arabe lu dul ci sunuy jataay yi te li ñu war a consommer xam nga Bob Marley ñëpp koy déglu. Alpha Blondy dañ koy déglu. kon ñun nuñ leen di dégloo ñun noonu la ñu war a dégloo moo tax ma ne la man gisaguma gisaguma dem bi. léegi yow musique bi ni mu yam léegi yan kon yan jéego lañu war a def ba musique bi ñëpp déglu ko. tey jii yow yaa ngi dox jéego bi tey yow act bi yaa ngi koy def tey ubbi nga sa sit fexe ba fekk suñu te danga paas bi ngay ñëw te lii dañu waroon a fay ñun. nga defal ñu ko parce que publicité la mais yow wane nga yow ne du bëgg nga musique arabe bi dox sa premier acte mooy loolu fa tabaarakallaahu kon pour musique bi dox li may njëkk a wax mooy la ma waxoon rek buñ ne Mama Shayba moo xewle buñ ko publicité nañ ko jaral doom ci sot la bokk ma chérie domp ci sot la bokk li nga def nii tey domp ci sot la bokk soxna Binta Thiam bu bu xewlee nit ñëpp daggu dem Abdou Aziz noonu Mohamed Seck Melo noonu yeneen firqa yi noonu faatu ba noonu mais bu fekkee maman Cheyba woote na nga ne duma dem parce que maman Cheyba du sama fans du neexul fa tabaaraka te ñun ñoo leen jur dañu yàgg ci musique bi fekkee lu bari xam lu bari nag ñegonaayu ko toog parce que man àddina dara jaraluma ci ñaaw soo mënulee ñëwal ki man mu jàngal la ki xaw a man sax ndax ñun kenn mënu ko bu ma marché ba xewlee salimata gàddu sa tànk nga ñëw bu ticket bi doon jar 10 000 francs domp ci sot la bokk nga jënd ko buñ ko waree publier nañ ko publier ba ñëpp dégg information bi ko kenn déggé nañ ko il faut que ñu def nous devons bi am nek jamaa parce que fal jamaatu rahma ñu bañ ko wax rek sang bi bi ñu vendredi bi passé Mal asaf yalla ñu yalla parce que euh, ñëpp devons nous ñëpp nous devons nous bu waxé war nous jëfé mais Mal asaf mbooloo moo gis nag dina ci am ñoo xam ne li yàlla xam doy na mais du tere ñi war a góor góorgóorlu mais musique arabe bi moom dafa des. dégg ñoo ko dégg nee na musique arabe bi dafa des kon jéego yi ñun ñoo ko war a dox pour jëmale musique bi ca kanam ndax dafa nekk musique boo xamante ni ah dina féexal sa xol dañ ko déglu tam muy neex macha allah maman Cheikh ba dégg ngeen conseil bi mu ñu wax maman Cheikh ba relation nga am ak waa yi. relation bu baax nag bu ma neex nag parce que samay rakk lañ nag. <laughs> <laughs> man xam nga su ngeen ne maman Cheikh sama yaram man sama yaram day daw parce que kilo la fonk teg la sa wàccuwaay bu la nee maman rey na la kon ñun li ñuy war ñun maman yi ñu xool leen bëtu doom xool leen bët rakk gannaaw xadara bi ñu bokk kon man awma ci ñoom benn xaaj ak seen xam nga maman bi dafa mën a tooñ man dama mën a kaf mais nag euh, boo boo ma jegewul doo ko xam ci man mais yalla ne man ñom ñep lay bëggé parce que tay ji suñu démé ba ñun dematuñu ñom ñoy dem kon ñun dañ leen duggal ci suñu xol yalla ne man relation bu def ni ak ñom la am mama cheba dama gis nga way way bo xamanteni muy ya seydi musafa way yu may way ndax neex na la sang bi te deg na ta ba nga nekk fi xatu jidu jadi nga ko way te deg na ba nga ko way sang bi amna na def ak yow de samay sam dañ ma may nag benn artiste waxuma ko benn soppi rek ma ko wax xam nga woy bi woyuma ko sax jiilul jadid ma gis kii bi kaset lañ ci waaw yàlla xam ne ne woyuma ko si jiilu jadid de bi may njëkk way wa yaa waa passé laa ko njëkk jox ci xew yeeg ci conférence yeeg fa tabaarakallaahu mais way bi xeyna na way naa ci sama kanamu kilifa wax dëgg yàlla nee naa bu ma bu fa yemoon sax mu neex yàlla xam na parce que nga woyal waxuma la sax kilifa mais nga woyal nit rek mu fekke way bi rek seetaan la rek atu bi lay jox doo xam mu toll rawatina na sang bu mel Serigne Fa bu toll ni Serigne Fa ngay woy ci kanamam man waxuma xaalis bi de man xaalis yitteelu ma mais man loolu dafa am fu ma yóbbu te du jeex ci man bés bu nekk maa ngi ciy bànneexu fa tabaarakallaahu ndax moom woy ko rek dafa neex mbett la. macha allah waaye woy bi dama bëgg nga xam kan kan moo ko bind ndax marché ba dama gis olofal gi. da ko mën macha allah ndax ba booy déglu wayu olafalam yi ci ngay gën a nekk en l'aise que ayu arab bi. xam nga dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne li ñuy làkk lu ci ëpp olof la te ñun dañu war a sóoraale mag ñi nag xadara bi nag ñi fi jàng piir a fi nekk ñu jàng arab bi maam nee na du arab bii bii mais arab arab naxawi bi la jàng am na fi nag mais daf ci am sunu yaay yoo xam ne dégguñu arab dañ leen di sooraale di leen yóbbaale moo tax ñun ñuy woy woyu olof pour yóbbaale leen géew woy bi nag kenn bind ko maa ko bind waaw bind maa ko bind maa jël ay xasida boole jël samay xalaat dec yàlla xam na ko waaw dama ko woy xam nga tagg baaxul ah, dama ko woy li ma yëg laa woy man waaw parce que xam nga du ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko limal ay maamam ku bañ ñu lim sa maam rek fekk la ñu def daa doy waar dañoo nekk ay ceddo waaye moom fa tabarakallah warasta majdan la asilan saanahu këram wa rifaatun bihi tarqal maqaamaati kooku sëriñ Babacar mooy baayam mooy maamam mooy tabaraka rabbul arshi an shibhi malikin laqad xaaba najmul xayri bal samsu saalikin ndeysaan way bi ndax neex na laay sang bee la laa ciy sang baa ngi tabaraka rabbul arshi anshi bi malikin ay laqad xaaba najmul xayri balsamsu salikin xalifatu qutbul awliya imaamuna أبو بكر من كان يهميني نازك دفتنا عاش محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقري تربى على هاتين إرشا ونسعة كريما وفي هاتين رمز من السر كوكوي سمام دي سنمام وبيما وي نخنقنا لاي سنغبي لاي تيسنغ بني غلي موي بلين مصطفى بني غلي متي كلوي سانغبي يا يا يا يا يا سيدي المحمد المصطفى سي بنيكو سباي من امام شيخ احمد التيجاني سباي كتر رقبه تهلو جاكريك موقع جاكر أيا فيلسوف العصر يا روح قومي فاينا بأمر الله فيك نبايع ولملا وقد جددت للدين ركني بتربية الأرواح فالكل طائع إشاراتكم تكفي لكل مفكر لبيب يريد الحق والحق الصاتي جمعت علوم القوم فقها ومنطقا وافيت بين القلب والعقل الجامع ليهنق أنا قد شهدنا بأنكم مجدد هذا القرن فرد وجامع موت يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن بني الأوتاني كوكوي سباي دي سنمام وي بيما وي نخ نخ نلاي بني خلي مجھے کلوئی مصطفیٰ لا لا لا لا چھے سنگ بانگی ما شاء الله ما شاء الله ما ما شاء الله واي بنكوي بن لويك دانا ما غيسني دان دان دان كو واي اخول الله اكبر حمغا دني هذا الذي جدو قد كان في الزمن يهدي الانام الى الاسماء الى الاسماء فما حرموا محمد المصطفى الغطريف نجل عبيه في الشجاعة سي العلم والكرم هو الذي جمع السبيان في زمن يطغى الفساد به فانقاد كلهم نحو الرشاد نحو التعلم فاغتنموا واجهت بدعة من مالوا إلى فند هجمتهم بنبال العلم فانهزموا أفهمتهم ببراهين الهدى فغدوا وهم حيارى وهم سم وهم بكم لا يكرهوك بدون الحق تزهره فامضي فامضي يا سيد المحمد المصطفى والذي بعثك بالحق بونيو نون نقوس سيجي سي دان تقوس عندك يو بلن تقو بغركو موتح مانكو ما جيت بابك ماضحا بل داعيا ومن مضيه تضرع ودعاء أهلا وسهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بمنقذ الجيل فجزاك الله بالإسلام خيرا وأيدك ونصرك على أعدائك بجاه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يلا يلا باركيل سيين تنجبوتي يلا يلا yàlla barkil sa yéene ci njaboot امين amin amin yaa rabbal alamin xam nga Seydi Mouhamadine Moustapha Sy ku yàlla boole moom rekk nga war a bég ndax du mérite chance la walla du chance mérite la ñaar yëpp benn la bokk ci du sunu man-man yàlla la ci boole parce que woy ko yomb na yombul woy bi li ma ci yëg man man Cheyba mënuma la ko wax parce que cofeel moo ko njëkk lal cofeelu pas-pas buy génn ci xol te doo ko mën a expliquer kenn ki nga xam ne boo toogee ci biir néeg boo dee def lu ñaaw nga xalaat ko rekk nga rus kooku dalaa lebal loo ko mënta fay tey dama ko ne moom bi nit ñi di sàndi nit ñi ay fet pour rey leen moom dafa jël fett xam-xam sàndi ko ay njabootam yar leen ci teggin yar leen ci yiw yar leen ci mbaax fexe ba defar kenn ku nekk nga am fasixatu lisaan fasaaxa booy wax dafay yomb ci yow ndax leer bi lay gunge nuurun ala nuurin fa tabaarakallaahu jàngal la àddina savoir être savoir vivre savoir parler Serigne Moustapha dañu koo jàngal boo demee ci jataay ndax ñun dañu yor école di jàngale nga bokk ak say mbokk jullit ngeen di waxtaan Bo né assalamu alaykum ñepp lay xol. kala fa la tax jubb bi la fal motax. kon ñun mënuñu koo fay ba tax na man Yalla man daf ma natto nak ma way ko mais Serigne Fall ñi mëna mën way ak ñi mënul way ak ñi bëgg way yëpp bëgg mun bëgg nañ ko way moo tax ma ne man aw ma alal li ma yàlla may nag maa ngi ciy participer mais baat bi ma yàlla may moo xam neexul de waaye dinaa ko ci way ba àddina bi yëpp dégg ba fa tabaarakallaahu waa gis ngeen de gis ngeen macha allah maman Cheyba tey moom nañ dalaloon fii ci Elvision Média seen émission taaru diine ji nee naa leen ñun dañuy fekk artistes yi seen kër yi fekk ji leen xolle ci luñ nekk pour interview leen ñu wax ñu seen xalaat ci milieu bi ñu nekk même Maché Ba pour ñu mën a jeexal léegi-léegi incha allah Maché Ba dama dégg dama dama gis ne nekkoo ci benn métier kese muy métier way bi da nga nekk ci beneen métier bokk la métier way bi waaw man damay dama yor école damay jàngale dundee yor école ak bëgg a nekk artiste répétition yi concert yooyu noonu noo koy dundee ñaar yëpp jàngale la di jàngale la mais metti na déedéet metti way rek dafa metti xam nga marché di lu rëy ti mbuum deec bu fekkente ne li nekk ci yow donc du metti ndax dafa nekk ci yow <laughs> fa tabaarakallaahu li mu nekk ci man moo tax boole kaa jàngale bi dafa yomb du jafe fa tabaarakallaahu marché marché bi fa la ci programme mi ngi waajal programme jamono yu ñu toll nii wala. waa am na benn programme bu may waajal defe naa la neuf la la neuf bii rek mais lié bi waxaguñ ma ko maa ngi ci contrat yi. bu jotee rek xam ne nit ñi dinañ ko yëg waaw beneen bi ci des ngeen ñaanal ñu ci single bi ñuy waajal ci góor gi waa xam nga single bi naa la si ñamal tuuti ñamaloon naa lañ ko keroog ci maam Cheikh neexoon na wala neexul xam nga maam Cheikh dafa am benn mbokk taalib bi murit bu bind ci moom ma jël woy bi bind ko woy ko <clears throat> waa ji nag xaw ma turam daf ko ne néew na lool sa waxtu dayow loo ci nooy yi def nga ko yow maam sa jëf ci day gën a law waaju sànq gi nga ko néew na lool sa waxtu de yow loo ci nooy def nga ko yiwu maam sa jëf ci day gën a law waaju sànq gindi nga ko li nga def ci duniya nee na fang kenn du ko suul yal na yàlla yokk soyoon ci barke maam Babacar Sy jaarama si dimba kada yaa ngi lay ñaanal sa maama ñaanal sa baay sa baay ñaanal na la sa la doomu gaynde du jur ñomba sang bi jaarama Mustafa jaarama sang bi jarama Mustafa jarama sang bi jarama jarama si demba soxna yaa ngi lay jarama si demba kade yaa ngi lay jarama si demba mag ñaa ngi lay neex na mais heure bi heure bi ah neex na trop mais dañuy wax ma chère mu tàggoo tàggoo bu tàggoo ndax xam nañ nañ fi ñëwaat doyaluñ de incha allah dinañ fi ñëwaat ci kat fa tabaarakallaahu soxna Salimata macha allah fa tabaarakallaahu yar geeg tey gi bu ko bàyyi nag man maa leen di ñaanal ndax man ku jóge këram di liggéey. ci wàll site moo xam ci télé nga ñëw fekk si ma liggéeyaloo ma sa bopp maa shay ba ngay liggéeyal su ma amoon àddina ak li ci biiram dama la koy jox parce que lii nga ma defal rek promotion la kon ma commencé ca kam moom site bi ma koy El Hadj ma koy ñaanal moom El Hadj Lo yal na yàlla ful ba ngeen dem ba am seen télé bopp. yéen itam yàlla barkeel seen liggéey fa tabaarakallaa sunu xaaliqi lool laa leen di ñaanal ba nga xam ni sax ñëpp dañuy xëcc pour ñëw ci yen parce que lebal ngeen ko du man ngeen ko lebal sang bi ngeen ko lebal sang bi moom ku ko lebal rek mu fay la junni ay junni junni la lay fay kon salimata bu ragal xam nga sidna abou bakar ba mu ànd ak yonent bi yonent bi war ko dalal mu xool yonent bi ne ko laa taxaf إن الله معنا نكون عيد مدم بوحد يود دق بمو أم مصف يعلم نساني إذنين إذ هما في الغاب وهو يقول لصاحبه لا تخاف دق بمو أم صلو كن ماشي لا تخافي ولا تحزني إن الله معك والسلام عليكم ورحمة الله ميرسي بوكو ma chérie Bye. Bye. macha allah gis ngeen tey Mama Cheikh ba lañ seetsi woon fii ci Parcelles Unité 19 waaye El Vision Médias seetsi woon Mama Cheikh ba xool ko mais yaakaar naa li mu leen wax ni dal na seen xel yéen ñi nga xamante ni yéenay soppee Mama Cheikh ba yéen ñi nga xamante yéenay ba gis ngeen ñu ngi ni sees nañu ko fii lañuy ñuy tàggoo tàggoo bu dul tàggoo di leen wax wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu El Vision Médias abonnez-vous alhamdulilah duma fàtte sama cameraman moom laa àndal fii ci Unité euh, 19 salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf